gërëm leen sant leen ndaxte bu leen gisee lii ñu def tey dafa nekk loo xam ne nit ñi ñoo ko soxla te waa Médina ñu ngi xool di gis yeneen gox yi am na ñu mel nii yu fay am ñu ne ñoom it bëggoon nañ ko ñu jël contact yi ak ñi nga xam ne ñoo koy yombal euh, kooku ñu ngi ko jaarale ci sunu jigéen bu tudd Awa Jali Ndiaye moom nga xam ne moo fi nekkal Comeva fii ci biir benn Bokk Yaakaar euh, mu xalaat ko waxtaan ak partenaires yi action solidarité ñu ngi leen di gërëm di leen sant ñu defal di ko def tey samedi ak suba dimanche nga xam ni nit ñi dañuy ñëw euh, bu ñu joxee ñeenti téeméer ñun ñu dolli leen ñaar téeméer ñu mun a consulter wu bu ñu soxlaa ay lunettes ñu mun cee jot mais leneen li muy jëriñ it mooy am na ñoo xam ne xëy na li nekk ci seen i bët dafa laaj ñu dem seet leen feneen ñu référencé leen am na ay cas yu ci jot a gis ñoo xam ne prescrire nañ leen ay analyse dinañ leen jàppale gunge leen pour ñu xool naka lañu ñu mën a yeggalee analyse yooyu ba mën dellu siwaat ndaxte bët dafa nekk lu am solo souvent bokkul ci li ñuy bàyyi importance trop mais jàngoro yi ci mën a lalu mën cee ñor ba tax dootoo gis dafa bari te dafa sew te du loo xam ne dafay metti donc baax na nga am information bi donc bët daal lu am solo la parce que boo amee bët moom foog naa ni yu bare dina dina xaw a yomb donc loolu lañ ñu jóge tey donc gërëm Jali bu baax Jali Ndiaye gërëm va parce que aussi contribution wu Awa Marie Coll la moom ci wàllu santé lay yëngu euh, remercier sunu xaritu bennoo yëpp parce que ci seen tour lañ ko defee te ñu nag ñoom ñoo ànd def ko fii ci bërëb bi nga xam ni ñu ko permanence su APR ñu ngi ko tuddee Kër Macky biir Médina Kër makki la tudd donc kuy yëngu ci Macky rek am nga fi siis am nga fi fauteuil am nga fi bureau.